balagay gayi laaj bat ak tontu tay balagay suma ko don laaj luk ko touba defal. lima ma touba defal ah loolu bour ëpp di netali xajul sama gémmiñ wallahi xajul sama gémmiñ lima ma touba defal bari na bolé mak setam bi bu baax bi sëñ basbara yàlla na yàlla yokki leeram te taas na ci barkeem ak mbooloom jullit. Balla Gaye lu ko booleeg Serigne Bassirou Bara. waaw kooku de <laughs> moo ma defal lépp waxuma la ak Serigne Touba waaw sëñ Bass Bara moom yaakaar naa ne sama baay la suma xarit la suma lépp la lépp lu ma xam wala lu ma mën daf ma koo ñaanal. kon lima Serigne Touba defal nak bari na club la booleeg sëtam mu defal la lépp kon man la wara mu a Serigne Touba loolu diko sante diko di gërëm di wax jere jërëjëf Serigne Touba khadim rasoul di wax jaaraama mam Cheikh ndax ñom nga fi fek fi fek Serigne Touba fek fi Cheikh kon ñun ay Baye Fall lañ ay talibé lañ te mom lañuy doxé dara ñoruñu bëgguñu dara Serigne Touba lañu bëgg mom lañu xam. Cheikh lañu bëgg mom lañu gëm mom lañu xam ko luñu Serigne Touba defal bari na mu ñoo am ak lu mu mënti doon rek foo ñu gis wala ñu nekk fa rek Serigne Touba Cheikh Ibra fay gis kenn Serigne Touba pour. jamono ye nga joggé fi dem ziaré ci sang ba Cheikh Mouhamadul Bachir. Mhm. waw nak daf ma daf ma bëgg daf ma bëgg daf ma bëgg mu nekk suma xarit ma bëgg lool bëgg lool nak te awma ci ben rek rek bëgg ko awma ci rek rek sop awma ci rek rek wa kon ba tax nay dal mom fu mu nere dama ko fay fekk magal gi ngeen mujjé magal defe na ne moy sen magal gu mujj bal gay kérok sor 3 pièces magal gogu nak ngeen ko dundé ak wa magal gi da yaakaar naa sax bo sété yéré bu mu sol ak bima sol ben téer moko ñew waye nak sante yalla sante yalla tax na it ndax sëriñ bi mom ah balang nga xam won la ginaaw te wonuma ginaaw sax wa nga noppé ko gis mo taxit ñaanal ko rek yalla na yàlla yokki leram té vraiment xamna né dal bur buur li ñu mën wax ci sëriñ buñ ko doon wax fi ba at duñ fi juggé waaw vraiment at bi bi at bi mo judd ba ni ma toll nii duñ ko doon waxtaanee du jeex kon kenn du sëriñ ak Safar daaw gis nañu berne yi nga ci def xéwal yi ren mu tombek euh, jàngoro ji am ren nag nga koy dundee ak mbokki taalibe yi waaw ni ma koy dundee ak mbokki taalibe yi dañ jëfe ndigal bàyyi tere waaw ñun ndigal rek la ñuy doxee waaw dañuy déglu sëñ bi rek lu sëriñ bi wax ànd nañ ci ak moom ndigal lañ ci am Covid bi ñëpp xam nañ ne ak feebaru réew mi fi nekk. di ñaan yalla mu jóge fi waye même buñu mënul def safar di wacce kamel di joxe berner yi ñu bañu a mbolo mi di nañ ko def ndax ñu Serigne Touba daf ñoo defal ba pare li ñuy defal ni nak ngeenel la su ñun ngeenel la su ñun ba nga xamantene ne lepp luñ def rek suñu bop lañ ko defal Serigne Touba liggéeyal nañ lepp lo yaakar Serigne Touba liggéeyal nañu ko kon nak bur safar gi ñoo ngi koy waaj dama koy def bu soobee yàlla buñ ci amee ndigal ne sëriñ bi ne bu ñëw mën nañ safar dinañ safar bu soobee yàlla bu sëriñ bi waxee ni ñu ko safaree ca Touba ñu dem safaree ko ca Touba incha allah.